asalaamaaleykum mbokki taskotu xibaar yi nekk ci saal bi maa leen di nuyu di leen jaajëfal ci ñëw bi ngeen ñëw ci suñu conférence de presse bii nga xam ne mooy premier bi ñu mës a def ñun collectifu CODAS collectif bi nga xam ne mooy xeexal Adji Raby Sarr di sàmm ay àkkam ak ay yelefam di ñaax autorité yi ñu jàppale ñu ci sàmm ak yelef ak ak yelef Aji Rabi Sarr yu ñu jamono jamono yu ñu weesu gis nañu ni am na ay événement yu fi am yu métti métti bu jéggi dayoo ba ay bakkan rot ñuy massawu seeni mbokk di mas massawu askanu Sénégal bépp di wax ni lii fi amoon ñu ngi ñaan yàlla mu bañ fi amati boo leen seetloo man sama taxawaay ci mbiru politik daanaka ànduma ak kenn ku nekk ci dëgg ma ànd ak yow li gën ci Sénégal rek lay xeex fu ma gis ni lii taxaw du intérêt Sénégal damay taxaw jàkkaarloog moom ku taxaw menacer intérêt Sénégal ma taxaw jàkkaarloog yow ñu toll ci jamono yoo xam ne liy menacer intérêt Sénégal jógewul ci pouvoir d'habitude liy menacer liberté d'expression ci pouvoir la doon jóge jamono soppeeku ba liy menacer liberté d'expression ak liberté sénégalais yi mu ngi jóge ci biir opposition sénégalais mënatul wax xalaatam te duñu ko saaga bu dee jigéen nga ñu ne la dangay taxawaalukat nga bu dee góor la ñu ne la dunk nga wala leneen ak leneen lu ñaaw ñu teg ko sa der mu nekk ay menaces graves à la dignité humaine ay violations dignité humaine ñu koy dund quotidiennement mu mel ni rek virtuel bi dafa permettre benn dictature bi nga xam ne moo waral lii amoon fii Sénégal jamono yi ñu weesu ñun ñuy défendre Adji Raby Sarr ñu ko ndax am ku ñu bañ wala ku ñu contre yàgg nañu défendre ñoo xam ne dañoo laal seeni ak ak seeni yelleef défendre nañu homme politique bu fi mus musa am problème taxaw nañ sa wet défendre la ku ñu tooñ ku ne Sénégal man Françoise Hélène yi taxaw naa sa wet xeexal la te duma la xam na ma taxawee démb doon xeexal Ousmane Sonko jàppoon ni ko dama koo tooñ noonu laa taxawee tey jàkkarlook moom ndax moom moo tooñ askanu Sénégal moom moo tooñ doomu Sénégal ndax loo xam ne ñaari nit a ko sëkk ana ci yoonu askanu Sénégal analu ci yoonu appel am mortal combat ana lu ci yoonu deuxième vague nit ñi di jooy seeni néew noppeeguñu ngay woote deuxième vague ñuy wax ni li mu nekkee ni mu taxawee jàkkaarloog république moo tax ñu taxaw ñun àndandoog république ndax ñun Sénégal kese moo ñu ñëw Sénégal kese ñu tax a xeex li nga xam ne moo am solo mooy que sénégalais boo gis ñu sàmmal ko ay akam ak ay yelleefam te sénégalais yëpp yam képp devant la république devant la justice te nag homme politique boobu nga xam ni moo taxaw jàkkaarloo suñu compatriote bi Adji taxawalul askanu Sénégal boppam la taxawal ndax taxawal boppam moo tax ba mu nekk woote ba ay bakkan faatu ngir moom coobare boppam ndax la yu xeex moom bokkul ak li Sénégal yittewoo ci jamono ñu toll nii ndax senegal jàmm lañuy soxla ndax gis nañu dëkk réew yu nekk suñu wet la fa am donc point sensible yooyu noonu mu laal mun na yàq lu bëri Sénégal ndax suñuy frontière xam nañu nu ñu mel te gis nañu ñi ñu gane si jamono ñuy weesu ak lim lim ñu jural donc ñuy ñaax nguur gi di wax ni ñun jigéen ñi la xeexal dossier bii nga xam ni moo nekk ci seeni loxo ñu bëgg ñu àtte ko ñaari doomu Sénégal ñoo jote yoonu askan wi nekku ci ñoom ñaar dañuy taxaw jàkkarloo yoon ñu àtte ku nekk ñu jox la la nga yeloon ku nekk xam ni amul benn citoyen bu ëpp moromam doole ci kanamu république amul citoyen bu ëpp moromam màkkaama ci kanamu république milliardaire beeg homme politique beeg gone gu ndaw gee ci yem ñoom ñëpp a yemal képp devant la donc ñu ngi ñaax sénégalais yi di leen massawu ci li fi amoon di leen ñaax ngeen ñëw ñu taxaw aar suñu réew aar justice sénégalaise aar autorité yi te taxawu Adji Raby ba yoon dox ñu àtte leen teg lépp ci yoon te muy nekk loo xam ni day gën ci Sénégal gën ci jigéen yi ndax bu ñu bàyyee dossier bi bañ ko def bañ ko traité nañ ko war a traité jigéen yu bëree ngi jooy jigéen yu bëri violé nañ leen ñu garder la silence ñu ngi toog di seetlu ba xam ndax Adji Raby Sarr lii mu dékku ndax dina ci am ndamam dégg ndax ni ñu traité dossier bi mooy tax ñoom ñu ñeme ñoom génn briser le silence wax li ñu leen def porter plant aji Sarr a été héroïque li mu def c'est héroïque Adji Sarr li mu def c'est un natt d'héroïsme parce que kamu mu sax xalaatul woon ni que dina am fit bu muy demee porter plainte léegi nag il faut ñu encourager jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci béro yi ñu leen di siif di leen sàkku ci anam yi nga xam ni jaaduwul jigéen yi nekk ci kër yi ñu leen di siif ay at yenn saa yi ñu dund métit boobu ba ba génn àddina il faut ñu encourager jigéen ñi ñu mën a génn di dénoncer di wax porté plainte et loolu mooy suñu objectif combat que mu bañati am impunité kenn bañ a sàkku doomu aadama yegg ci moom siif ko surtout nga siif ko nag ci ay anam yoo xam ne daanaka suñuy diine dañu koy tere suñuy diine dañuy tere yenn anam yoo xam ni xale bi nee na noonu la Euh, homme politique boobu yeggee ci moom léegi bu dee bu fekkee ni nag bàyyi nañu loolu jàll mooy ni légaliser nañu siif légaliser nañu harcèlement sexuel te bu boobaa bu ñu noppee nañu ubbi prison yi ñi fa ne te xam ne dañ leen jiiñ viol ñu libéré leen ñu ñibbi seeni wetu njaboot parce que citoyen yëpp yem devant la loi et il ne saurait être toléré mu am ay exception parce que bii doomu Sénégal dafa am ñu bëri ñu ko bëgg wala ñu ko topp wala fexe na ba jël réseaux sociaux yi en otage benn jamono parce que loolu changé na ba tax ba mooy xoxatal nit ñi di leen imposer que ni Adji Raby maanaam ñu bañ ñu néewal ko doole bañ koo déglu bañ a àtte dossier mbokk yi donc xeexu CODAS au-delà de Adji Raby Sarr c'est pour toutes les femmes sénégalaises contre l'impunité contre le refus de justice surtout euh, bi nga xam ne constaté nañ ko te néew doole souvent ñoo ciy nekk euh, ñoo ñoo ciy am ay problèmes des gens comme Adji Raby des couches vulnérables souvent dañuy am problème pour que seeni dossier mën a yegg kon dossier bi la loi doit sévir dafa war a loxo loxo yoon dafa war a diis comme niñ koy defee ci dëkk yi sow jant boo nekkee kilifa nga def faute sa daan mooy gën a diis que suñuy daan samba booy wala benn mbojo mbojo kilifa bu def erreur daan bi dafay gën a diis pour di jox leçon ñeneen ña ca des won leen ni que république bi xamul ay milliards xamul ay tout xamul ay daraja tous les citoyens sénégalais sont égaux devant la loi maa ngi leen di gërëm di leen sant merci